lii moom a dugal si politique. baax na d' accord waaw ñu avancé wax ci procès Adji Sarr Ousmane Sonko am na fi euh, démb la woon gis nga ne dañ ko renvoyé ba le 23 waaye tamit ni mu doxa ni mu maanaam doxalin gi gis nañu Ousmane ko teewewul procès bi nan nga nan nga jàngatee le fait que Ousmane Sonko teewewul procès bi. Ah. woote ne moom léegi euh, du du wuy yoon daal. waaw xam nga wax na ko mais amu si droit parce que citoyen la. li ma lay wax ci peut-être que erreur yu bari yi boobu ci la bokk. Hmm. boo bëggee jiite réew. Hmm. nga xam ne boo jiitee réew mi yaay nekk garder la constitution bëgguloo ëllëg kun woo mu ni du ma wuy ji yoon parce que ki jiite réew mi tey ban ko wooyu defu ko demutoon da ngay waddu say kàddu si yenn yi parce que magistrat yi du ñu ay politiciens ñaareel bi yoon mën nga am loolu naqari si moom boo jëlee réew mi nga sens la naqari waaye képp ku yoon woo da nga war a dem wuuji parce que ñu ñëpp ñoo bokk yam ci yoon parce que ay citoyen lañ te constitution moo ñu tënk ak ay loi ndax moom ni def ni du wuuji yoon man bu ma neexoon def ko ni du mu yoon bokkul de si non xam nga lu tax mu wax la ko bokkul xam nga lu tax ma wax la ko ah, cest à ba tey da ngeen di jum yen yéen a dugg Ousmane Sonko parce que boo nee bokkul fan nga teg ni bokkul tey jii boo boo newoon doo wuy ji Ousmane Sonko mii nga xam te ne na wuy jiwul mais gis nga takk der yi ngir ñu jege këram rek gis nga askan yu bàyyeekoo fu nekk ñëw. waaw léegi voilà est-ce que yow di voilà xam nga léegi. est que di nga am loolu man bu ma neexoon. waaw bu ma yoon wooyee ma dem toog Touba kenn du ma jël si. wallahi alxasim bu ma yoon woon bu ma neexoon bu ma toogee Touba kenn du ma jël si parce que lu Ousmane Sonko defal Séquence defal naa ko waa Touba te tamit dara suñ Touba laa bokk mais man. damay wane chaque jour une bon exemplaire parce que man dama bëgg nekk candidat bëgg a jiite réew mi bu mu bëggee jiite réew damay wax ni. Hmm. réew mi mënoo ko jiite te respecté woo institution yi. Hmm. fii lan ma fekk ma nekk député nekk vice président commission de loi. Hmm. mois de juin bi passé. ñu jël ma fii sama kër yóbbu ma fi nga xamante ne mooy si kaso bi ma def fa ñaar fukk juróom-ñett. moonte bi mu xamante ne ñi ngay def maanaam war maa jël si defal sama dossier wax nan ma ni ma demal Touba toog parce que ñi ngi defal sa dossier pour jël si la loo tax dem ma Touba toog parce que damaa jafe ni lu dul yàlla ak neen nga te nit mënul dellu ëpp ñaar yoon te foo xam ne duggoon na fa boo fa la wàññi dara sa sa sa sa kii euh, sa sa royukaay ci politique muy président Abdoulaye duggoon na fa ma dem wuy ji muy injustice boobu noonu ma dund ko fi mu toll may wax ak yow sama procès bi nga xamante moom lañ war a def. le premier juin bii ñëw nii. dinañ ñëw xam nga ñu ngi si war a kii ñëw. le mhm. procès le premier mais bu ma neexoon bu Ousmane Sonko ne du nguuj man ne leen yoon bu Ousmane Sonko demul duma ma dem parce que ñoo bokk yem ci réew mi te conseil moo ñu tënk. mais man damay dem parce que lu tax may dem mooy damaa defe ni defuma loo xamante ne bu ma demee man nan ma si condamné. même buñ ma ci condamné. Mhm. ma xam ne man def naa la ma war a def. li mu war a wax naa ko man député la nekk sama session fi may waxee tëjagun. nekk vice président groupe parlementaire kenn mënu ma atte te dindi woo sa mbalaanu kiraay kenn mënu ko ci àddina parce que article cinquante et un ci règlement intérieur moo ko wax ak article soixante et un alinéa deux ci constitution bi ñaar yooyu nag nit mënu koo salfaañi nit mënu koo bañ a gis mukk bay atte député boo xam ne da nga ko yóbboon ay sérition di ko taxawal di ko atte te loolu kiiwu te yàlla dogal na loolu moom nekkul député ba mu nekkee député bi ñu ko wooyee mooy du dem parce que dafa bëggoon ñu dindi bi laanu kiraayam mais mi waxee am naa ko mais teewul d' accord kon li fekk la fekk Ousmane Sonko demul yaa ngi koy bu baax a baax waaw dama man uh-huh. Uh-huh. dama bëgg mu dem wuy ji te dinaa ko woo ni ko demal nga wuy ji du bu wujjee uh-huh. mooy gën mooy gën ci moom mooy gën ci réew mi la fekk mu dem Ziguinchor bu wujjiwul dana métti si moom dana métti si réew mi te ko jar te jàpp naa ne moom ñëpp ci ci bii nii bu fekkente ni am na bu fekkente ni comme nee na hmm. am na preuve yoo xam ne wane na ni am na hmm. te taxawoon nañ dafa bëgg procès am ndax man wax na ma ni ma na procès am ba ma leeral comme procès am na waaw léegi wax na ko Sénégal yëpp na dem leeral ku koy wax naan ko bul wuy ji bëgguloo ko d'accord le fait que mu dem Ziguinchor ñu bëri dañu jàpp ne maanaam boole affaire de ethnie la làqatu ji ci Ziguinchor nga xam te ne gis nañu foofu zone Casamance bi rebelle yeeg et tout ñu bëri jàpp ne Sonko am na leneen lu laal ci ginnaaw yow est-ce que looy partagé la. man daal li ma xam am na sañ-sañu dem Casamance. waaw waaye tamit bu ñu ko woowee war naa wóy ci ndax Casamance mooy maire bi Ziguinchor. waaw mais bàyyi ba procès bi di ñëw. waaw mais am na sañ sax xam nga maanaam amul àpp. tey bu ne woon suba la procès bu ko neexee dem dikkaat waaye bu ko woowee na dem wuy ji Ziguinchor moom mooy maire Ziguinchor am na sañ dem Ziguinchor fa mu nekk la mu nekk la mu def loolu concerné wu ma mais la ma jàpp daal di ko ñaan mooy. képp ku mën a wax ak moom na nga ko wax ni ko na ñëw wuy si li nga xam mooy procès bi le 23. parce que renvoi définitif la. il faut que ñu àtte audience il faut ñu àtte ko. d'accord ma koy ñaan moom man dinaa dem teew si procès bi. Ah. le 23. Hmm. bu ma neex yàlla dinaa dem. Ah, may tam yow lu demoo bii nga bëgg a dem. may tam bu man may attee may tamit may attee la maa ngi ko ñaan mu kon da ngay dem pour wuti bës. man Sëñ Tuubaa deful ma bës lan laay dee bës. honorable man bës yoon dama ko mën a passé. d'accord mais honorable. man yow bi may xam ma nekk di da ngaa xam Sonko. waaw wala déet 2017 bi may nekk député tas ensemble sax nekk meilleur de ana Sonko Sonko 2023 2022 la ànd ak moom. waaw ah, mais Sonko Sonko depuis 2014 mu ngi. man laa wax 2017 laal wax bi may nekk député xamoo Sonko bi may fekk assemblée nationale may liggéey assemblée nationale ba am maanaam nekk premier député ñëpp askan wi xam ma xamoo Sonko Sonko 2014 la tàmbali génn assemblée def candidat 2019 man mi bu ma defoon candidat 2019 bu ma jëlee deuxième wala troisième damay continuer ñu gën ma am. li am man mais buzz bi Sonko am nag man man mënoo mënoo man buzz ak buzz Sonko jamono ñu toll nii quoi non man non non man daal man daal peut-être non dama ne dama ne dama jamono ji moom man damaa xew man damaa xew te duma xewi parce que sëñ Touba laa àndal ah, il faut que nga bàyyi non non non non non waaw mais dama ne xam nga yow loolu yaa koy wax rek parce que man bi may man bi man bi may may falu ñu ne si réseaux yi falu ñu ma man Touba ma fal te Touba xew naa duma fi xewi man nekk naa député benn yoon nekk naa député ñaar yoon soxlaatuma mandat député présidence bi laay laaj incha allah 2024. lan hmm. lan la ah la xam li ma la wax nii. Hmm. ci li nga wax noonu. Hmm. day fekk si maanaam confirmer li ma waxoon. parce que yow da nga defe ne ak ñenn ñi ku bëgg bës da nga ànd ak Sonko. ah yow yaa ko wax léegi nii. non non déglu ma rek yow non yaa confirmé waat moo tax ma ne la ñi àndal. xëy na kon ñoom dañoo bëgg bës parce que. bu doon toon Sonko ñoom du leen xam. benn xam bi nii ñoom bu doon sonk mais man damaa siiw avant sonk ma ñëw ànd ak moom jàppale ko léegi nag la kaa mooy sama continue sama trajectoire bi ma teg sama tànk bu ma ko weddee bu ma ko dindee da ngeen naan Cheikh Abdou nit parce que man dama ni Sonko falu Macky falu laa yemale parce que amu si kenn ku ma mën a jariñ d'accord Sonko mënu yokk Macky mënu ma yokk kon le 23 di nga dem le 23 bii ñëw nii bu neexee yàlla dinaa dem ci procès bi xool seetaan déglu ndax ah, dégg naa aw dégg naa ay avocat yi nga xamante ni mooy avocat mm, maître Moussa Sarr mm-hmm. mu wax ni waaw avocat maître Moussa Sarr laa wax waaw mooy avocat waaw mu ni dossier bi am na ay vidéo waaw léegi yëpp bëgg naa ko déglu wala ma xool comme comme que audience publique la ba xam lan la. kon da ngaa bëgg a dem pour gëstu ji xool. dinaa xool parce que comme man. parce que yow aussi askan wi laay toogal. yow aussi. askan wi laa toogal comme askan wi laay toogal dama bëgg xam pour que man dem ma dem. dégg naa ci benn vidéo nga ne. Ousmane Sonko am na benn jour si salon de massage bu la jóge woon. mu ñëw fii. <laughs> ñëw sama ko vingt troisième ay car waaw loolu am na ne la fa laa jóge woon waaw yow war nga ci xam dara xanaa man loolu laa ci xam parce que fa laa jóge woon ni ko nekkee bu jógee fenn bu ñëwee foo jóge ma ne fa laa jóge woon léegi après dafa aay fa <laughs> comme que nee nga maanaam bu fekkoon yow daf laa jege di la wax kon da ko conseillé ba yenn ba mu ñëwee dinaa man daal ba mu ñëwee nee naa ko waxoon na ko déglu ma rek la ma ko wax wér na te wax naa ko ko. waaw nee naa ko defal très attention parce que gars yaa ngi si ginnaaw ñu lay topp. wax naa ko ko mu yor benn toit rek di dawal boppam yor benn capuchon bu gris. ah gris. gris eh, dëgg la de. loolu la gars waxoon man du ma man du ma fen. Maître El Hadji ñu koy dégg mu naan sol capuchon. daal loolu dara man daal ay. Ah? ñu ngay tudd ñoo ñëpp tudd ma la parce que avocat bëjë bëjë yooyu soxlu ma la man li ma wax mooy. li may wax Sonko dugguluma ci ñooñu ngay wax noonu parce que gëwma seeni wax. Ah, mais mais man man dama ni man la ma gëm li ma wax am na te kenn mënu ko weddi ñëw na sama kër trois vingt troisième mois et quart capuchon bu giir la soloon moo doon dawalal bopp otoom laaj naa ko muy dafa demoon foofu ma ne ko gaa lay topp fii lan yam man ak moom amul leneen. d'accord mais vidéo yi nga dégg ak ay audio ñu dégg am dossier bi ay page yi page la. te da ñu ne maanaam dañu ne war a may sax 45 jours avocat yi pour ñu mën a la lëñ bu baax a baax a baax est-ce que. Euh, waaw mais xam nga nag boo xamante am na ñaari at. waaw ko war a war nga koo xam. wax dëgg yàlla bu fekkente ne xëy na audio yi. dañ koo dugalaat si biir ak vidéo yi yooyu peut-être rek war nañ ko mën a maanaam multiplier. fii ak le 23 parce que loolu yomb na ndax fi boo jëlee maanaam avocat yi ñu toll nga jël kale yi ESP dugal ko yi benn ba nekk maa matul 10 minutes nga koppiye copier ko. dossier bi ko ne am nga ko. waaw ah, kon euh, pour man loolu du lay lii lay mooy. bu bis jotee ndaw si nii dañ ko violé. nee mm-hmm. na am nay preuve askan laa ngi xaar ay preuve am. Mm-hmm. nu ñëw ak ay preuve mi nga xam ne nee dañ koo complot na ñëw ak ay preuve am yoo xam ne dañ koo complot. looloo jaaxal ñi ñu lu tax jëwul ak ay preuve am. waaw léegi laaj ko ko. Ousmane Sonko waaw. d' accord léegi honorable euh, Ousmane Sonko ak ni nga xam te nii noonu la élection yi di ñëwee waaye tamit justice yi dossier justice yi. waaw mais euh, man daal vraiment. non euh, man bu ma yi man bu ma sañoon aussi. dernière question la ñu doon ñëw nga wax samay wax man. say dossier dina ci ñëw parce que Ousmane Sonko ay dossier am ndax ndax am nga yaakaar ni. concerné wu ma est ce que yaakaar nga ko. dina nekk candidat waxal ci man li nga xam mooy sama dossier ak institut bi ma teg ak sénégalais yi nga xamante ne xeexal naa la par rapport ak dossier dernière question voilà ndax nekk candidat ci élection yu waaw jàpp naa ni Ousmane Sonko amul lenn lu ko tee nekk candidat ok parce que dossier bi nga xamante ne mooy dossier Mame ñaa Niang ngi appel kon dara amagul mhm. condamnation bi dara walaa balagul mhm. te fii ñu déposé candidature yi trois mois la te fii trois mois yi conseil cour suprême mënu fee génne li nga xam mooy décision. wala boog dana ma bett lool parce que xëy na ñu patam patamee ko. accéléré ko ko bu ko defee maanaam L29 et 30 yi nga xamante mooy code électoral bi mën a dal si kawam xëy na loolu. mais bu fekkent du loolu muy dossier boobu noonu ak dossier bii nga xamante ne atteegun ko. jugé ko par contumace bu fekkee waaw bu fekkente ni ñëwul. mais damaa jàpp day ñëw. Hmm. man man ba keroog maanaam may gëm ni du ñëw mooy dama ko gisu d'accord Ousmane Sonko euh, jàpp na dana ñëw. d'accord te man dinaa wax ak moom balaa boobu. d'accord ni ko na ñëw. ñu wax ci sa dossier. waaw dégg nañ ni euh, le premier juin incha allah lañ lay atte ci sa mbir moom nga xam te amoon na fi mu nekkoon coow loo xam te nii vraiment honorable xam naa yaa ngi koy regretter. nan nga jàngatee lan lan lay regretté lan laa may la waral li waaw mais xam nga xam nga éligibilité mu xam nga xam nga man xam naa ne bi ma nekk candidat seen yëngal dossier bi man xam naa loolu. éligibilité aussi mais man mënuñu man mais d'accord mais man li hmm. même bu ñu yemee man mënuñu ma condamné parce que man defuma lu may condamné. ndax dañ ne Cheikh Abdou Badul dafa wax loo xamante ne dafa dafa dindi ñaam ñàkk war ma njiitu réew. waaw xam nga loolu la wax. waaw la wax bon loolu la wax laa wax. mais man mi wax samay wax waxuma lu ñaaw njiitu réew mi parce que tudduma njiitu réew. honorable aussi nag. c'est honorable c'est honorable nga baal ma ñun ay la gis nga boo bëggee xale yi génneel la mbir mi léegi nga nga nga. dama lay wax dama ne. nga yow yaa wax say dama la ma wax kaddu ya ma wax. Aïda mën naa ko répéter. dama ne kaddu ya ma wax musuma taxaw tudd président de la république. benn ankay baatu président man laa tudd. Macky Sall nga wax. Macky Sall mooy kan. Macky Sall la république mooy Macky Sall moom la. mais président la mais bu ne bu ne mais institution mooy président de la république baatu président la république mooy institution Macky Sall njiitu parti la. non te ba pare ñaareel bi. loolu ngeen jàpp ne man loolu loolu ngeen jàpp ne man moom laa wax. am na am na ay waykat yaa naa maar yoo xamante taxaw nañ way ko fii waaw def ko ay kasak. waaw waaw. moo tax kenn topp leen. ñoom lan lañ wax. wax ko. non man dama damay laaj lan yow yaa ngi jox exemple waykat yi neen Macky Sall saay saay la sàcc la ñoom ñoo ko wax waykat yooyu waaw yaa la mar waaw ko ma dégg non man man du ma ko répété ah, voilà léegi léegi la kaa danga maa bëgg a dugal déet du dugal parce que kase jàng fi ñoom ñoo ko way <laughs> dégg nga <laughs> campagne bi campagne bi 2019 moom la gars yi doon campagne uh-huh. mais li am solo man dan maa yar si diine uh-huh. yàlla mi ma bind xam na ni li ma doon wax jublu ma saaga Macky Sall Ah. parce que du ma ko saaga parce que sax am na loo xam ne te séq nañ ko du politique ah, Macky li ma séq moom li ma séq moom hmm. du politique li tax ma mere ko mooy Ablaye Wade ak ñoom toroxal yu Touba lii moo tax ma mere Macky Sall mais du leneen ba sama yaay gaañoo bokk na si ñi ma njëkk jaale man kat yi dama ko waxee bokkul ak ñoom ni ngeen ko déggi non yow déjà beneen bi télé bi nga naan waaw suuf waaw ay suufu ngor ak waaw wakaama man loolu mais man la ma wax laa yow yow nga ne Macky Sall biroom dafay jaay dafay sàcc suuf waaw suuf si suuf waaw léegi ban suuf ngay wax biroom biroom waaw lay suuf lay lay suuf waaw léegi jigéen nga moo jigéen déedéet ba tey moo jigéen ba tey déggoo li mu la wax de non honorable même bu mu tuddee moo jigéen jigéen Macky Sall lu lu ñaaw li ngeen si bëgg ko formalité waxee ma ko noonu Macky am na ku mu neex ma ne ko recevoir. munoo ne man maa waxoon waxe déedéet man damaa damaa amul damaa man la ma gëm mooy. man ma bi ma doyen di si wooyee itam la ma wax lu wér la loolu moo ne si dossier bi bu nee itam loolu laay wax. mais fi mooy suuf si may wax. suuf si aéroport bii moo ko sàcc moo sàcc suuf si nekk eh, ci ci ci côté euh, tribunal bi. ñu koy tabax aw hôtel. loolu laa waxoon hôpital Dantec loolu laa waxoon. te loolu ma waxoon loolu. dama ne dama ne suuf laa wax rek yéen yéen bu lu tax bu ma nee. yéen loolu tax bu ma ne léegi bu ma nee suuf ngeen bëgg ko def yow mii la yaa yem yow il faut que yoon jël sax parce que man bu ma nee day sàcc suuf nga bëgg ko orienté ban suuf nga ko bëgg orienté. non mais jigéen après. mais waxuma si lu bon. waxuma su lu bon bu leen tudd maanaam man ngaa tudd jigéen. wax wax sàcc suuf wala wax naa nga mais musuma wax ni. dafa dama ni man nga koo teg nga monté ko waaye waxuma jubluma si lu bon. parce que wallaahi si du ma saaga Macky Sall parce que àdduna jëru ko mais le cas mooy bu loolu jàllee même bu fekkee dama ko def ñu ne ma da lay jàpp flagrant délit. waaw mais lan moo tax ñu yóbbu ma instruction du yoon kenn waruma yóbbu instruction. ak wax ji nga wax. mais flagrant délit flagrant délit lan wax ne. waaw léegi flagrant délit lan la àtte lan la àtte parce que flagrant délit donc kese la mën a jàppe député. mais ñu ne ma léegi flagrant délit yóbbu ma ba foofa. Mhm. détourné procès bi yóbbu ma extradition. waaw léegi maa ngi xaar jugement bi. kon da ngaa jàpp ne la bëgg a euh, faagaagal ci élection mais loolu lañ bëgg mais loolu mun ne parce que man moom <laughs> la may def moom dinaa ko def dinaa bokk si élection yi dinaa gagné Touba dinaa gagné Sénégal incha allah. bu fekkee ni. loolu tënku la. ah la may tënk ba mu ko naa dama dem appel. loolu bu weesoo sax tamit chaque ko. xam nga fi la ñaara maanaam. wala maanaam dañuy euh, ku jaag déggul tubaab waxoon naa la ko dama la koy article 28 la. boobu noonu. moo tax ma bëgg a dem ci bi pour ñu dindi ko. pour mais yaa ngi def ay cours. ah waaw jàng naa de loo ko wax ci français waaw yow def nañ fi émission loolu moo baax parce que loolu moo baax parce que maanaam candidat présidentiel dafay nekk xam ne day saf nit ñi man damaa saf nit ñi maanaam Sénégal képp.